gan gi ànna sambu moo jiite ndaw yi def euh, dialyse wala yi amee insuffisance rénale ci Sénégal euh, ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum maa salaam ñu ngi am mbégte dalal la ci matinalu mi FM tey ni ma ko waxee yow yaay présidente des jeunes dialysés du Sénégal mu ay ndaw yoo xam ni dañoo amee feebar bi ñu naan insuffisance rénale. am na ñoo xam ne ñu ngi doon fajoo hôpital Dantec euh, hôpital boobu tey lañu ko war a tëj ngir ne dañu koy defaraat est-ce que euh, décision boobu tëj boobu am na lu mu def ci yéen euh, ci seen wàllu paj ndax am na ci njeextal xëy na yi fi jaxasoo ak yooyu. bon salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay. bon li nga hôpital la daan teg mënaguñ ci wax leer lu bëri ci fi ñu jëm parce que demaguñu ci place boobu donc pour le moment ñu ngi hôpital la daan tey dañoo nekk di finaliser liggéey bi nga xamante ni su euh, nga xamante ne moom lañu ñu war a dem muy hangar euh, ancien aéroport hangar hangar bi lañu leen war a yóbbu pour ngeen wéyal foofu seen traitement waaw fa la ñuy transformer pour euh, ñu mën fa def ñu traitement d'accord la kañ ngeen fa war a dem le vingt quatre incha allah la ñu wax le vingt quatre le vingt trois incha mooy semaine bi di ñëw. waaw di ci liggéey yi war na mën a pare. d'accord donc pour le moment yéen a ngi continuer seen faju hôpital Dantec amul benn gàllankoor. amuñu noonu foofu lañu tekk di def suñu gàll yi sa hôpital Dantec ndax ñeneen ñëpp service ñëpp génn nañu. ok léegi comme que ñun liggéey bi pareegul dañuy priorité ñu toog foofu en attendant ñuy pare liggéey bi. Hmm. ana seen paj naka la demee. ndax am na ay euh, gàllankoor wala. bon comme comme ni ñu koy waxee chaque jour rek prise en change totale amul mais jëlal nañu suñuy dialyse bi en charge état jël na ko en charge mais analyse yi ak garab yi dafa cher moom lañu jëlu en charge ñooñu ñun ñoo koy jëndal suñu bopp. Hmm. bon mu doon lu metti loo xamante ni aussi bu ci doon jàppale dina baax trop. kuréel bi nga jiite ñaata ndaw ñoo si nekk ñu amee jàngoro bi. bon mënuma wax à peu près ndaw yi ñoo ci nekk mais bëri na xale yi def jalis bëri na parce feebar dafa nekk ni ki boo xamante ni mag comme ndaw ñoo koy am mais xale yi aussi bëri na ci ñi nga xamante ni ñu ngi war a jàng ñi nga xamante ni war a liggéey aussi ñu ngi ñi si gën ndaw ban at la am. ki ci gën a ndaw mi ngi am ay dix-sept ans dix am. li mhm. ma xam. yow kañ nga am feebar bi ak noo ko amee. ma dikkee 2012. boobu maa ngi am euh, quinze ans su ma juumalee parce que bopp ak def na léegi dix ans maa ngi ci sama trente ans euh, ni ma dikkalee nag euh, dama jékki-jékki di neewi ñu ma may neewi lu ma lekk ma wàcc ko di am ay ay xel sama xel di tey aussi di tufli rek mm-hmm. voilà noonu la ma dikkee léegi ni ma dikkee noonu sama mag bu gis ni que normal ci laa def dem hôpital xool sama yaram docteur bi xool mu gis ni que feebaru rajo am naa ko donc euh, ci ñu ma diagnostiqué noonu ci laa commencé def dialyse hmm. parce que mënu woon xaar quinze ans lan moo la jox feebar bi boobu jamono bon miñ bi ñu defee diagnostic ba pare ma ne problème mu kii la am tension buy yéeg hmm. donc moom moo ma mhm. tey nga am fanweeri at boobaak léegi noo dundee jàngoro bi metti da parce que yàq na sama jàng tax na mënuma continuer sama jàng sama rêve li ma amoon aussi mënutuma ci réaliser dara parce que il faut que nga jàng am sa diplôme ak sa loxo donc mu doon lu metti comme bépp xale boo xamante ne yaa ngi am sa rêve jàng tekki teral say waajur donc mu dool lu metti ci man mais di ko santee yàlla parce que moo ñu ko teg mais aussi bu ma di ñaan rek nag euh, ñi nga xamante ni ñoo yor seen entreprise ñi nga xam soo ñoo yor seen école ñuy séntu ñi nga xamante ni dañoo amee problème réseau te dañuy bëgg di inscrire ci yi continuer seen jàng wala ñuy déposer ci entreprise yi pour am liggéey mm-hmm. mën a teral seen waajur donc ñu leen di gëstu rek ñu ci ñuy bàyyi xel bu baax ñi nga xamante ni yore nañu feebar bëgg te bëgg liggéey wala bëgg jàng mm-hmm. puisque yow la ñu dalal tey est-ce que euh, yow euh, malgré feebar bi continuer nga sa jàng ba xëy na tey yaa ngi liggéey wala yaa ngi wut liggéey fekk na woon parce que toog naa lu ma toog cinq ans six dama ni du ma toog dinaa def formation yu ndaw yoo xamante ni dama mën a permettre ma am benn ay diplôme yi nga xamante ni dinaa ko mën a déposé pour liggéey. Mm-hmm. ngoon formation yooyu ngoon laa ko doon def tamit. Mm-hmm. mënu ma ko woon def matin bi parce que yaa ngi yeewu sa kër quatre heures du matin dem hôpital wala nga ñibbi si une heure des fois même sax nga tardé parce que day am ay problème yi am. ci ci ci violence sociale yi mun nga pare sonn wala mun nga yegg machine yi bu baax wala mun nga yegg ndox coupé wala courant coupé donc mu doon lu metti mais def nga sa formation finalement ba pare. def naa samay formation ba pare wax. est-ce que am liggéey yomb na am nga liggéey jamono yi. yombul de déposé naa ba sonn mooy mënuma am benn liggéey. Hmm. parce que ku la gis day gis ne danga feebar. malgré traitement bi feebar bi dafay fës. da ngay joxe sa proposition ni yow lii nga bëgg liggéey soir bi moo lay arrangé parce que lii nga am lii nga am. bon duñ la mu dañ lay wax ok rek mais après kenn du la woo kenn du la mm-hmm. parce que ñoom du seen arrangement en fait. ok voilà. jalis bi naka lay demee pay gi euh, durée bi ak xëy na après li ciy topp naka lay demee jalis yi. pour le moment nii am nañu jalis bi gratuitement pour ñi nga xamante ni ñoo nekk ci public bi. gratuite la. mais li nga xamante ni mooy analyse mm. ak yeneen yi fi topp garab yi métti na trop. moo doon loo xamante ni war nañ ci gëstu aussi analyse yi nga xamante ni ñun chaque trois mois dinañ def bilan bilan cent trente trois mille francs presque lay lay lay lay coûté. Mm. cent trente trois mille francs bilan bi. donc aussi loolu mën nañ ci gëstu ñu wàññi ñu analyse bi mm. soit bi ñuy fay ñu fay moitié état fay moitié sax di dëgg arrangé ñu am problème boo xamante ni chaque jour dañ koy yuuxu muy suñu neurocorps moom mooy bi nga xamante ni moo ñuy permettre hmm. ñun ñu am deret donc ji ñaan état mu dimbale nit boobu presque ay quatre-vingt mille ay quatre-vingt mille plus lay jar hmm. mu dimbale nit mu defal ñu ko gratuit di ñu ko subventionné parce que malade yi soxla nañ ko dañuy ñàkk deret tout le temps parfois nga dem di wuti deret doo ko am donc piqûre boobu doon na lu efficace ci te doon na lu am njëriñ ci ñaan état rek ñu si ñu dimbale ñu aussi am nañu beneen problème bi ñuy jooytu muy suñu fistule bi nga xamante ne dañ koy def am na ñoo xamante ne dañuy quitté des régions des régions ñuy ñëw pour def fistule des fois dañuy ñëw ba fii ñu leen di dàq di leen renvoyé parce que jëluñu rendez-vous wala parce que place amul wala parce que seen jour jotagul mm-hmm. donc mu doon loo xamante ne war nañ ko mën a séddale ci yi ñëpp ko mën cee jot ci dumu gën yombee mm-hmm. ñu ñaan nag état bi ci loolu d'accord donc amu leen problème dialyse mais problème garab yi ngeen am feebar bi ban yëg-yëg lay def si yéen est-ce que dafay da ngeen ay métit euh, yuy jar ndax dégg nañu ñu bëri dañu wax te dama dem hôpital ñu dàq ma wax nga ko léegi aussi ñoo xam ne seen rendez-vous jotagul euh, naka ngeen di dundee feebar bi est-ce que des fois dafay am ay métit yu jéggi dayoo yu insupportable ba ba mu waral peut ngeen di jug dem hôpital sans sans rendez-vous si si des nga lekk loo xamante ni yoo xamoon ni ki ban effet lay def ci yow bu hmm. doon mu def effet yow te doo xam ni li nga lekk loolu la te effectivement loolu. parce que lekk bi da ngeen ko war a contrôler. alimentation bi dañ ko war a contrôler li nga xamante ne bëri na potassium. Hmm. muy ay pomme de terre ay pataas ay diwtiir gerte loolu yëpp dañ ko war a moytu mu doon loo xamante ne mën nga ko lekk booy def dialyse à temps buñ la branché mais mu waroo ko lekk sa kër. Hmm. di ci abusé. parce que mun na la indil problème yoo xamante ni urgence lañ lay yóbbu. Hmm. donc problème alimentation bi aussi dañ ko war a xool bu baax surveiller maladie seen biir kër yi. ndox bi aussi da ngeen si war a yemale voilà ndox bi dañ ko war a yemale <coughs> pardon waruñu ko abuser de trop ndox bi aussi ñaata ngeen war naan au moins si journée bi zéro virgule cinq litre mooy butéel bu ndaw bi mooy genn wàll litre tey suñ ko doon natt mooy genn wàllu pot mooy genn wàllu pot waroo ko dépasse ci journée bi mm-hmm. mais imagine ka nga xamante ne yaa ngi naan garab yu bari moom c'est obligé nga jël ndox nga utiliser ko pour naan sa garab mais butéel boobu daal waroo ko dépasser lan ngay wax ñi nga xam ne ñu ngi nekk ay ndaw di dundu feebar bi peut-être yow courage bi nga am ba mun a euh, taxaw di wax tey di nettali ñu bari bëri mënuñu ko xëy na am na ñenn jamono yi moom ñu ngi ci ay guddi yu lëndëm ñooñu loo leen di dénk ak seen ay njaboot surtout parce qu'on suppose bien que soxla ngeen ñi leen wër aussi jàppale leen ci wàllu xel jàppale leen ci réconforter leen euh, ndax du ñàkk des fois ngeen ngeen nekk quand même ci ay moment de tristesse d'angoisse yooyu lan ngay dénk ñooñu ak seen ay mbokk bon loolu fi may njëkkee mooy famille bi hmm. donc famille bi moom mooy principal bi donc bu ko amee sama laaj yow yaa ko mën a dalal hmm. jox ko li mu soxla hmm. mbëggeel bi ah di ko di xool ci lu mu ne lu mu soxla loolu bu ko amee rek moom du yëg ni ki dafa feebar ba mu jëm gi faju aussi ñun entre ñun dañu war a waxtaan di xelalante jéem la indi bañ la bàyyi ngay isolewu boole la ci nga doon benn wan wax la ni ki feebar bii du dara mm. da koy dugg ci sa xol da koy dund fépp nga xool sa entourage ni ñu doxalee rek mm. nga xamante ni noonu la mm. nga bañ di isolé wu donc li may tënk mooy mbëggeel mbëggeel moo jiitu feebar bi foog foog foog ñu leen ñu leen jox mbëggeel bi nga soxlawu ñu bañ la nga bañ a sentir ni ki yow da nga feebar voilà nga bañ a isolé wu daal donc li wax rek nit ki feebar taxul na nga doon handicap hmm. donc da ngay xeex ci sa biir xol nga am paix intérieure ak paix extérieure hmm. yàlla dina la dimbale nga nangu nit ki lii feebar rek la comme feebar yi hmm. donc euh, di wax nit ñi daal bu ñu bu ñu gis nit ki def feebar rek ñu ignorer ko wala bañ ko jox mbëggeel bi ñu soxla parce que on a besoin d'un amour dañoo soxla mbëggeel boobu en en dehors de peut euh, di cas seen euh, ay doléance wala lu ngeen bëgg ñu jàppale leen ko seen euh, kuréel gi lan mooy njariñam naka ngeen di jëflante ci seen biir ak xëy na yan jéego ngeen jot a def ba mu ba mu amal leen njariñ aussi fan ngeen bëgg a dem. bon mënuñu def grand chose. Hmm. parce que entre ñun rek du a dox parce que ñi nga xamante ni dialyse bi dafa metti déjà dañoo mujj obligé créer benn association. Hmm. donc di wax rek euh, ñu ñuy dimbali. bu bu association yi déposé ci centre yi nga xamante ni ñoom ñoo am euh, yàlla may na leen mm-hmm. ñu ñu geestu dialysé yi donc des fois dañuy déposé ay aide donc ñu mm-hmm. ñu gisee ne kii hémodialysé la mm-hmm. te parce que il dafa nekk ci soxla moo tax mu déposé ñu ñaan rek bépp demande bu ñu def ñu ñu siggil ñu ci dimbale ñu ci parce que lépp lu ñu def du doy dialysé lépp lu mu soxla du doy. Mm-hmm. tout le temps yaa ngi yaa ngi dans le besoin parce que urgence day ñëw à tout moment kenn xamul. Mm-hmm. donc di ñaan rek nañ ñu bàyyi xel. Mm-hmm. nañ ñu bàyyi xel bu baax. ana ah, ñu bàyyi la nga nga tëj peut-être kàddu bu mujj boo bëgg a wax jëmee ko ci ku la neex wala kuréel goo bëgg mu dégg la tey si si benn message boo xam ne euh, am nga ko mu mu mu yittee la lool. waaw di remercier ñëpp di remercier suñu waa association di remercier infirmier de Dantec yi mm. di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu di wax aussi euh, ñu ngi gis aide yi à travers fépp di di wax aussi état mu sigil ñu si certes mayee na dialyse bi gratuit mais di ko ñaax rek mu dimbale ñu ci li nga xamante ne mooy analyse yi ci li nga xamante ni mooy suñu neurocorps moom muy suñu garabu deret bi ñu war a jël voilà mu jubbale ñu ci defal ñu ci xewal wàññil ñu ko wala mu subventionné ko moom comme ni mu defee jalis loolu daal la ñu am lu ñuy ñaan amu leen njàkkare si engare bi ñu leen naka yóbbu pour le moment xam nga ñun demaguñu ko sur le lieu hmm. mais d'après malade yi ku ci nekk yaa ngi wax lii ndax am na fa lii la ndax am na fa parce que dem guñu sur les lieux nañ ñu ko nañ ñu ko defaral comme ci anam yi nga xamante ni am na sécurité surtout sécurité soxla nañ ko parce que kuy yeewu quatre heures du matin cinq heures du matin mm. nar ñëw ba foofu difficulté la taxi bi metti na xamoon ñaata ngay fay taxi bi mm. aller ci ki nga xamante ni sa famille euh, famille démunie la dafay metti donc sécurité bi aussi ndax foofu lumière yi leer na ci mbedd bi parce que engar bi ak fi ngay wàcc pour dugg il paraît que dafa sori dox bi day nekk mhm. am na ñi nga xamante ni c'est des handicaps duñ ko mënoon dox ba foofu mhm. amaana ko oto sax duñu nangu dugg ba foofu kenn xamul lan moo fa nekk ndax pharmacie am na fa aussi tamit kenn xamagul mhm. ndax am na boutique yi nga xamante ne dañuy jaay alimentation pour mbir ñu mën a lekk ndekki parce que foog nga lekk koy jàlli loolu aussi xamaguñu ndax am nañ fa donc daal loolu yëpp daal ñoom ñoo ñu ci mën a jàppale ñu tënkal ñu ko defaral ñu ko ba nga xamante ne ñun lépp dina nga accessible. jërëjëf Anna Samb ñu ngi lay gërëm bu baax amoon nañu mbégte dalal la yaakaar ne li nga fi wax yépp ñi ko war a dégg dinañ ko dégg aussi aussi ay euh, solution ba waxtaan wi doon njariñ euh, ci yéen ñi nga xam ni surtout yow yow yaa ñu ko may tey Anna ñu ngi lay gërëm bu baax a baax waxee lu juum lu ëpp ak lu dépassé maa ngi jégalu. yëpp na ana ñu gunge ak ma.